njóobeen bi xam naa xëdd moo. Sénégal maa bëgg Sénégal. ku si nekk fa ngay génn. ku si nekk fa ngay génn. waaw bee métti rek la. mu ñu rek yéen yàlla yërëm quoi. pàcc mujj bi euh, soxal bi la jotaay xibaar yéen a kaay xëy fësal lay doon ak El Hadj Ahmed Aïdara seen Sendwave seen application yónnee ak jot xaalis bu jóge bitim réew ñëw fii ci Sénégal te doo fay dara Lalia mbégte kër gi meew mu sell wóor te bëri ferñaay seen revue de presse bismillah waaye garab yu bon yi lée lii lan la Le Soleil yéene kaane en tout cas jàppati ay garab yu yoo xam ne day lii kay mësuñu koo jàpp nag la wax ah waaw parce que xaalis ba day buñ ko xaymaa toll na ci benn milliard ak genn wàlla allahu akbar ca kër ayib la ca Kaolack termines yéene kaa ne dama ne la duwaanu kër ayib ba ca boppam kon day ay toni ton la ay dama ne la xaalis ba boo ko xaymaa la ñu jàpp day ah lu tolloo benn milliard ak juróomi téeméeri millions yu tëges lëf la un milliard cinq cent soixante quatre dee mi jaagi dama ne la gis nga médicament yooyu waaw garab yi day ña ngi ko dencoon nag ci ay keesu jën yoo xam ne nañ koo congelé ca suuf laas yéene kaay nee na séminaire gouvernement ba day président Macky Sall daal di nay sàkku nag ca gouvernement ba ca boppam kon ñu daal di baral recrutement bi lee wutal nit ñi liggéey waaw le soleil yéene kaay nee na xëyu gone yooyee wutal nit ñi liggéey di wàllum recrutement ba waaw dama ne la semaine bii lay door yaa jum wala maa jum ma ne looloo xale yi liggéey day recrutement ba kay semaine bii lay commencé nag laa la wax yow ca jamono joojee nga xam ne ñoom Zahra Iyane Thiam waaw di lijjanti xëyu gone yi Dakar Times day na waaye ICS day waaw daal dinañuy xot lu tolloo juróom-ñeent ci ay société yoo xam ci ay doomu aadama yu fay liggéey danañu ñàkk seenu liggéey la ilaha illallah ah maa la ko wax mii directeur u ICS day moo indi ay coppite te nañuy joxe nag autorisation yo wàllum benn yoon ak ñi nga xam ni kon ñoo fay liggéey di exploitant yi yéen kaa gi ni kon waaw ña ngay mu daal di sobee lu tolloo junni ak juróomi téeméer ci ay ndaw yoo xam ne boo sàgganee danañu ñàkk seenu liggéey la ilaha illallah Omar Faye leeral askan wi ci évidence la musiba mbaa bu kumba boo xam ni day ña nga xam ñoom la ñuy sàkk ca ñoom doon bu ne ñuy fay ñaari téeméer di ko fay indien yi te loolee ñooñee amuñ ci droit njiite leeral askan wi Faye waaw nee na gis nga lii lépp lu njiig directeur général u ICS Alassane Diallo moo njag laa la wax te moom Alassane Diallo moomee ba mu retraité kenn xamul kañ la looloy dëgg de Serigne Modou Gueye UP ci 24 heures waaw nee na Macky Sall ci boppam kon moo war a takk fitam wi lee daal di dàq paa yi nga xam ne ñoo nekk ci république bi retraité bu yàgg a yàgg te jamono joo xam ne nag maanaam réew maa ngay mitee fu ne mel ni màggat bu feebar mi quotidien nekkoon directeur u ONAS waaw nee na Serigne Mbaye jugee ca ONASCO ge ca jamono jooje la Guy Marius Sagna ci libération yéen kay waaw ne gis nga coowal suuf si nga xam ne moo dox ci diggante Ndengeleer ak waa Sedima Guy Marius Sagna day nee na waa Ndengeleer googee ak Babacar Ngom day defuñu dara ñoom ñaar ñëpp nguur gee leen tooñ aha waaw source ané en waa Jilaax day wax nañu de wax ju doy waar parce que Aliou Faye day porte-parole askanu Jilaax googee waaw nee na ab ñu génn ni lé Bassirou Diomaye Faye lu Gassama samedi ji ñu génn ca Ndengaleer fukki junni la teg ci ji wax nit ñi ne leen continuer leen di xas Babacar Ngom Sedima allahu akbar chef de village su Ndengaleer googee mais amul woon benn bañ waaye gis nga léegi defaral nañ ko protestantaire te ñi ko ko defaral du kenn kulul yàqkat yi rek Guy Marius Sagna day waaw nee na Babacar Ngom Sedima mi de deful dara loo xam ne kon lu illégal la maanaam loo xam ne jaarul yoon moo ko waa Sedima ay victime leen a tooj na gis ne kon ñu ngi koy dagg-daggaat day wàllum découpage wala administratif waaw mais nekkul pour politiciens yi lée mais pour askan wi la looloy dëgg de Amadou Dia ngemu ca a jiite mën a jege ñañ jiite exclusive yéene kaa ne daggaatu gox goxaan yooyee day mais ñu baree bari ci askan wi dajaa d'accord a waaw parce que boo jaaree ca loo kële dem ba jam ñaajow romb jaxaay ñàkkuram nduxura askan wa ca boppam kon ña ngay rafetlu mbir mu ni mel nag laa wax parce que nee nañ dooñoon sàngal kam kële waaye am na ñenn ñoo xam ne day wane nañ seenuk mer parce que daal nañ kon ay pono ca Mbambilor jaxaay direetu news de Macky Sall day waaw daal dinay tarasawaat na carte collectivité territoriale yi lée en tout cas ville de Dakar moom suul nañu ko ñetti ville yu bees ñoo judd ci Ndakaaru njaay jël jóob eh way samba ca yàlla te Macky li ko yóobee lii du lu dul ragal a ñàkk capital bi la wax kese parce keroog ba Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade ñàkkee capital yii am na lu mu def ci seenuk daanu dama ne Ndakaaru njaay jël jóob amatul léegi ñetti ville Parcelles Assainies Grand Yoff Ngor Ouakam ak Almadies la ilaha illallah de Grand Dakar commune Grand Dakar ca la ne Biscuiterie Liberté Dieuppeul Derklé HLM ak Hann troisième ville ba de Colobane Gueule Tapée Dik Médina Plateau Sicap Mermoz ak Point E eh way Samba yéen kaay Pape Jogoy tee ne yeneen ni ville yu mag yu nekk ci biir réew mi tamit day Macky Sall dana ko naka dagaatoon de teewul waa këram yi nekk ci Dakar Ndiaye jël joom ña ngay rayante Le Quotidien yéen kaay ne Mbaye day daa door Amadou Ba fayu ma ne la xuloo nga Parcelles Assainies Mbaye Ndiaye nee na Amadou Ba defal attention parce que gis nga naa fekki ñi ngi ci jegeñaale yi ñi ngi ci mbokk yi ñi ngi ci àndandoo yi defal la ko ci ruq danaa la ko waxaat fi lee Amadou Ba waaw na Mbaye Ndiaye Mbaye doucement rek président daf maa wóolu def loo ma ay mer ak nag mën ta ci wàllum politique de te Mbaye Ndiaye xam naa ni ku bëgg président nga waaye di ma may nag ma wuuteeg yow ci cofeel googee nga am ci président <laughs> problème yaa ngay démarré de Amadou Ba ne ko Mbaye tu ma me de te concurrencer auprès de Macky ña box foofu ne waa kër Macky Sall yi ne ca Tambacounda gële ña ànd ak Mamadou Kassé ak ñi ànd ak Sidiki Kaba waaw dañ doon xeex xeex bu mité mité nag laa la wax yàlla libération yéene kaa ne ca diwaanu Kaffrine day waaw waa Benno Bokk Yaakaar a ñi ñu àndal day dal nañ ca kaw Abdoulaye Wilane de laaste Amadou Diarra maire Pikine Nord transhumé dem na APR maar di Italie maa la ko wax xam nga Abdoulaye Timbo mi ngi ko doon tàllal loxo yooyee waaw ndekete Amadou Diarra day démb dee pale ci boppam fale ca Macky Sall fa la ndogoo di def délégation bu baax ànd ak Abdoulaye Timbo na source aane grève bi nga xam ne waa SAMES day ginnaaw tuumal kële ñoom day nee nañ bokkuñ ca grève ba tey te bokkuñ ca ëllëg laa la wax parce que lii xam ni kon moom la ñuy dund dafa doy sëkk ak barke tey rafetlu nañu tamit taxawaayu ministère de la santé gi ak bagage yi bees yi nga xam ne indi nañ ko ca hôpital ba critique yéene kaa ne doyen des day gaa ñaa ca de kan mooy remplacer di Samba Sall ca la gaa yi ne yéene ngaayu terrain yi day ca aéroport Yoff lay saf par parloo <laughs>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 ñu mel ni ñuy dugal jën jën yoo xamante ne jël dafa laaj congélation ak fraîcheur mais ci biir nag dañ ci def euh, ay garab donc léegi boo tijjee ba ñëwee camion bu taxawee control dañuy naan jën a fa nekk mais comme ñun douane euh, dañu tàggat ci aussi ci contrôle boo koy def am na produit yoo xam ne da nga ci war a gaaw pour que mu bañ a yàqu boroom am lu yàqu ci moom ah donc trafiquants yi dañuy jël canevas yooyu c'est-à-dire que suriki boobu pour jéem a nax douanier yi. desine ba tey ci garab yooyu nga xam ne teg na nañu ko loxo kuréelu syndicat bi ëmb kon pharmacien privé yi dem nañu sa kër ayib ngir nag nemmeeku xayma gi jëm ci garab yooyee bu nu ko xaymaa suñu koppar ñaata la toll njiit la ci boppam la ñuy teewlu ay kàddoom moom docteur Assane Diop. gannaaw bi ñu vraiment gërëmee waa douane parce que ñu ngi def liggéey bu rafet euh, damay fàttali rek ne ñun souvent dañuy xool un peu le site de la douane deux mille vingt li ñu jàppoon si ay garab ëpp na un milliard mais ren ñu ngi mois de mais presque mën nañu doubler na loolu tamit lu ñuy rafetlu la di leen ci gërëm bu baax a baax te di wax ni aussi ñun pharmaciens par nañ pour ànd ak douane liggéey bi lu mu laaj ñu def ko garab yi si boppam bu dee ñun rek pharmacien la danaan lu bon rek lañ jàpp mais nag li ci gën a doy waar mooy dafa am yi nga xamee ne tuddee nañ ko beneen tur ndakate ay ndakate drogue la muy morphine te biñ ko seetee mi ngi toll ci euh, juróom benni téeméer daanaka ak juróom fukki kilo de morphine muy alal ju bëri. El Hadj Mamadou Mansour mu ngook ay garab yi ñu tegati loxo xayma nañ ko ci lëpp euh, benn milliard te li ci gën a yéeme mooy bileyoon sa dafa rax dorog. <laughs> ñu ngi sant bu baax waa douane mhm. ñaata moo jàll. parce que ni ko docteur Assane Diop waxee euh, comme daaw li ñuy jàppoon ren ci mois de mai la ñu toll te na donc ñaata moo jàll. Mhm. li jàll ñen ñoo koy consommé. donc euh, Sénégalais yi foog ñu gën a prudent ci médicaments yi ñuy jël mais loolu itam da ci gis responsabilité gouvernement bi xam nga lan moo ko sabab toujours ay pharmacie yu doyul ci Sénégal gis nga pharmacie bu doyee ci Sénégal defatuñ ko comme luxe maam. amul kenn ku bañ bakkanam di jënd ay garab ci mbedd loolu benn la kantaana lu jëm ci wàllu drogue moom xëy na am nañu cible ca ñoo koy consommer ça c'est kenn du jël ay milliards wala ay centaines de millions jënde ko yoo xam ne drogue la te amoo say cible am nga sa clientèle loolu itam xeexu gouvernement bi la euh, ñetteel bi ci desit nag euh, ci garab yi ñuy jàpp mooy comme li ñu jàppoon Colobane euh, garab yu baax la yu ñu mën a consommer donc garab yu baax yi ñu mën a consommer mais xëy na kii am na sañ sañu dugal li wala amul sañ sañu dugal li am na sañ sañu jaay li wala am sañ amul sañ sañu jaay li donc loolu toujours euh, responsabilité gouvernement bi moo ciy génnaat fii fexewuñu ci Sénégal ba garab dootu fi nekk luxe kenn ku ne si digganteeg pharmacie bi gën a sori du passé cinq cent mètres euh, xeex fi euh, médic faux médicament lu jafe lay doon parce que nit ñi faw ñu faju ci consommation yoo xam ne jaadu bi ci des nag mooy fi may jeexale njaayu mbedd mi mm-hmm. ñoom ñoom la neex occupation anarchique ñoom la neex donc yooyu ñoom ñoo koy régler parce que ñoom la dénk pour ñu régler ko. seen xeex la ñu wutali sa euh, Linguère Louga foofee nga xam ne euh, l'hôpital Magatte Lô ba fa lakk ga amee ñeenti ci ay ñoo si ñàkkoon seen bakken jaww mu nga wéy di desu xambin euh, ci daan nga xam ne jot nañu ko fa teg si ñenn ña bokk na ca ñaari infirmières yi nga xam ne dañu leen affecté waaye it njiital hôpital ba na mu tekkee ndombal tànkam loolee moo métti kuréelu bi tënku ci SUTSAS sa gox ba si ak janox taskatu xibaar yi nee na ñu wàllu wér moo di njàkk ñu teewlu sa Amadou Niang ay kàddoom. boo gisee tey ñu daje fii c'est parce que dañoo am suñu collègue yoo xam ne tey jii yoon dafa ñëw pour jéem leen a faagaagal te ci kaw faagaagal boobu ñun dañu xam ne yoon dafa xamul li xew moo tax mu bëgg a doxalee noonu parce que accident dafay am surtout dans le cadre médical ak nu mënti demee bu accident amee war nañu mën a xalaat démb parce que y a combien d'enfants qui ont été sauvés dans ces crèches-là ñun waxuñ ne erreur am na mais il faut ñu situer responsabilité yëpp parce que boo jëlee ñeenti nit ñu war a garder quatre services avec quel matériel waaw pour pour pour service bu ne benn nit loolu dafa doy waar ba pare encore vous avez vu une semaine après l'incendie on a déployé des moyens yoo xam ne indi nañ ko foofu à la disposition de l'hôpital bi la nag hôpital Magatte Lô waa SUTSAS si boppam euh, ñoom ñooy euh, jàppal tànk ñi nga xam ne ñoom la ñu teg ay daan ku si mel ni infirmières yi waaye it euh, njiital hôpital bi nga xam ne moom moo tekki ndombal tànkam ñoom ka ñu joxoon baaraam mooy ministre de la santé. absolument parce que xam nga fii ñaari responsabilité ñooy am d' abord dafa am benn responsabilité pénale boo xam ne mën nañu ko toppee directeur hôpital bi mais aussi responsabilité civile kooku ministère bi nañ koy nañ koy toppee li mu wax ni ñaari affaire laa ci retenir ji amee comme ni ko waa ji waxee euh, indi ay matériel mhm. donc kon ça veut dire que peut-être que matériel boobu bu teeloon a ñëw peut-être que du ñu woon taal ay kii ak yooyu ba jiyee ji mën nañu mën naa dem mais beneen bi tamit mooy euh, kuy. kuy kuy liggéey mooy juum xam nu ma ko mën a waxee. Mm. ça veut dire que ba c' est que erreur am na négligence am na wala yem sanction mais bu ñu sànni l'eau du bin avec le bin et cetera. parce que euh, sunu médecins yi aussi surtout ñi nekk ci zone yi euh, ay la yéwén aussi ay jàmbaar nañ. des fois moyens du ko matale des fois conditions yi du ko laaj mais ñu ngi def seen kii bi mais euh, du nekkul ni rek benn erreur bu amee rek dañ fay doxee nag daal di tam gaa yëpp dëmm. Mm. en tout cas àdduna ak erreur mooy am donc nañ ci jël ay conséquences te foofu lañ tubaab bi rawee su benn erreur amee dañ ko war a bu ñu defee dëy bi ba pare dañu war a toog càmbar ba nga xam ni ëllëg waxuma la sax foofu sax mais faneen erreur bu mel nii du fa am malheureusement nag ñun du ñuy tirer ay conséquences yuy bu amee dañuy tamante dëmm ak yooyu te je pense que au delà de ñu jéem toog xool ku nekk lan moo ci sa responsabilité ak individuellement et collectivement plus jamais ça au Sénégal. El coowal hôpital euh, Magatte Lô bu Linguère bi la yoon waa SUTSAS nee ñu lu jiit njàkk euh, njiital euh, ki nga xam ne mooy ministre de la santé moo di njàkk. mais loolu mooy loolu mooy dëgg man loolu laa mos di wax que gis nga tey ñi nekk ca l'hôpital bu muy ñii nga xam ne ñoom la ñuy topp kenn ëpp leen naqar parce que ay père ak ay mère de famille lañu kon bu fekkee accident am na faw ma ay sanction loolu mënut ñàkk mais ci sanction yooyu aussi foog ñu bañ ko def affaire kumba am ndey ak kumba amul ndey par parloo parce que xel mënut a accident bi am. ministre de la santé dem fa ñuy wax naan nuyuwul directeur ba fa nekk loolu mooy lan. Eh, loolu loolu loolu nan la tudd directeur ba fa nekk démissionné le lendemain mu toogaan ne démission dañ ko licencier loolu mooy lan. <laughs> mais affaire fay wante yooyu noonu Sénégal moo weesu foofu règlement de compte yooyu Sénégal moo weesu foofu kenn ku nekk boo defee da la war xëy na du ñu yegg foofu hôpital ba ñëpp xam ne am nay jafe-jafe lañ fa yóbbu tey ci équipement ba fa nekkoon lakk gi mun naa bañ a am. Mhm. ñun nag Sénégal dañoo tàmm di dóor ba titu jaan au lieu ñu dogaale jaan ji. faw mu am faw mu am ay sanction loolu moom mënut a ñàkk parce que ay ay ñoo rot faw mu am ay sanction mais bu fekkee yow miy dawal sax te ko mbëkk nit ci kaw tali bi sanction na tegu sa kaw loolu forcé la mm-hmm. mais fayu wantoo bi ak affaire jaay doole ñenn ñi bëgg ci génn chargé ko ñenn ñi loolu moo moo moo teguwul fenn ku nekk assumer responsabilité te bu weesoo boobu noonu ñu xool yeneen hôpitaux yu mel ni ay paxi kaña boo weddee demandeel sa fukki région ñeent yi nga am ñu defal la ay grand ci seen biir hôpitaux yi nga xam ni benn doxul da ngay tëdd ci hôpital suba ba ngoon imaginez maam hôpital bu mag Sénégal yu mag yu ne Sénégal nga am AVC sept heures du matin ba dix huit heures kenn xoolu la hmm. mais am pagaay ci hôpitaux yi ay firnde yu leer nañ léegi nag bu fekk bu kooku deewee bu ñu toppee waa hôpital ba bu fekkee borom yax bu dijji la ñu topp waa hôpital ba waa ministère de la santé changé ki jiite hôpital ba je suis jël seen ay responsabilités. kër docteur Sow la ñuy desandil ak nag sa boyaar gox la bu féete sa commune bu Loul Sessène arrondissement bu euh, Fimela foofee poste de santé ba si boppam lay def kati ñaawteef daal di song lu mu gàtt gàtt juróom-ñetti fukki euh, million jot nañu ko yulli sa seen i gafa looloo sabab nag euh, kuréelug syndicat bi di SUTAS te ñu sa gox ba ci boppam yëkkati seen kàddu di xam ne ne kon lu ni mel nag mu ngay tàmbalee sakkan si gox yooyee kon na dafa war a dakk ñu ànd si Alioune Badara Sonko Kori Diouf depuis quelque liggéeykat santé yi nga xamante ne ñoo nekk ci district bu Diofior dañ leen di agressé di leen bundu xataal ba tax na sous section SUTSAS bu Diofior di ko nakarlu benn samba booy dafa dugg si biir poste de santé bu Boyar